bima ko xolé même tour la même chiffre bima serigne Sidi Mokhtar joxoon. Mhm. man sa waxna naa ko ko. Mhm. voilà euh serigne Sidi Mokhtar dama ko dama ko bindone ne ko dama bëgg. Mhm. gudd fan. waaw ba nopi am xewal gu yaatu ci àdduna. deng nga. ta yalla may ma xol ma dila ko joxat dila ko delo assalamu alaykum alaykum yeah. Assalamu alaikum alaikum yai Assalamu alaikum alaikum yai Assalamu alaikum alaikum yai Bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dóor nga mën koo njëkk a am. gis naa Marème Faye bi muy doxantu sax lu mu gàtt gàtt benn waaye nee na ko Marème. waaw na nga wax Macky Sall mu bàyyi tëj gii Mari Sagna. waaw voilà te itam coupe bi yii ñu yor ñu gañe nii. man dafa am lu ma géeñ coupe bi ne moo tax ñu gañe ko. muy lan mooy Sénégal at yii mu génn dañoo jékki-jékki acte patriotisme dugg mm-hmm. leen. waaw dëgg la waaw ni ñu bëggee réew mi ci ñaari at ñeenti at yi juróomi at yi mhm. meluñu woon noonu du ma ne bëgguñu ko woon de mais doon nelaw la yeewu na xamoon nag du ma ne lii moo ko yee du ma ne kii moo ko yee mais en kuy xool Sénégal xam ne bëgg gi ñu bëgg réew mi mhm. ak taxaw gi taxaw léegi ci réew mi moom loolu andi na Coupe d'Afrique andi na Coupe du Monde andi na leneen leneen sa soo ko seetloo mhm. am na ay firnde yu bari ku mel ne Guy Marius Sagna moom c'est la première fois nga gis ku nit ñi ne nañ ko jëndal oto ay nit di dajale ñoo xam ne xamoo leen xamuñu la mën naa am ñu dund ba dee duñ la gis doo sëriñ doo géwal doo footballoo defoo dara mais xam nañ ci yow bëgg Sénégal rek mhm. ñu daal di dajale jëndal la oto loolu sénégalais yàgg nañ fi mais daawuñu ko def déedéet boo xoolee ay Karim Xorom Xaq ay ñii di wax ci euh, pip YouTube bi di mhm. def ay live mhm. da ngay gis ñi am vie yoo xam ne am na artistes yu ko mun ta am fii ci réew mi am na politiciens yu ko mënta am bayuñu yettuñu du affaireu diine du affaireu dara dañu yaakar ci ñoom bëgg réew mi rek mm. fu ñuy waxee ni ñu ngi leen top di leen jël mm. loolu lu bees la lu am ci réew mi muy ak patriotisme bëgg sénégal mm-hmm. loolu nak jik nañu parce que andi na coupe indi na coupe ta dina andi leneen moy nit ñi nañ bëgg réew mi taxawu réew mi mm-hmm. bañ kenn ku nekk nekk sa roxu tok naan man sama serinya ma ñor ñi naan sama gamo ma ñor ñi naan sama nawetaan bi ma ñor ñi naan sama télé ma ñor su boba kenn du am dara li am solo moy ñepp dañ koy bolé muy ben doole muy sénégal dëgg la mhm. jërëjëf Cheikh Bara li nga wax noonu am na solo muy acte de patriotisme boobu nga xam ne moom nga wax noonu mhm. wax dëgg fa yàlla loolu moom lu wér la mhm. te it lu nit ñi mën a duut baaraam la daal ne mu ngi nii xam nga bu njëkk ba dañ lay wax naan la Sénégal moom bu fekkoonte bi dañoo gasu pax kenn du tungoom kenn mais tungoom gis nga léegi bëgg sa réew bu ñu la ci xamee rek nit ñi tungoom nañ la ba nga jëm ca kaw te loolu c'est très important bokk na ci li ñuy indil coupe voilà Cheikh Bara temps dama doon dama bàyyi ma yeggale yow dige dama bi dama ne la waaw dama ne daanaka jeex na léegi dañuy ñëw ci da nga bàyyi ma dañuy ñëw ci li nga xamante ni bii moom nga ñu digoon voilà ñaata minute acc deux minutes ko sama professeur ko déggu muy kat saa njóog maa sa professeur français maay sa professeur man maa jàng ya may jubbanti kay yaa yaa may jubbanti do jàngoo déggoo kay du ma dégg léegi nag na Cheikh Sidi Mokhtar wird daf bu di ko liggéey ba ma def benn tàkkusaan ma ñëw fii ci Walfadjri fekk fi Sidi Lamine Niass waaw fekk sax ma am lu mu doon liggéey maak moom Moussa Faye xaw a yeex a ñu des ci bi euh, bi ma jox luy tax ma am nek do ki dal mune ma ah waaw mu ma ah mu waxtan waxtan xawa yag dal hmm. waye bi may jox dal lima joxon bima ko xoolee même tour la même chiffre bima serigne Sidi muxtar joxon hmm. man sa waxna ko ko hmm. voilà euh serigne Sidi muxtar dama ko dama ko bindon ne ko dama bëgg gudd fan ba nopi am xewal gu yaatu ci denga. te yàlla may ma xol ma di la ko joxaat di la ko delloo mm-hmm. loolu laa ko bindoon ba may may loola hasbunallahu wa nixmal wakilu la ma jox quatre cent cinquante hasbunallahu wa nixmal wakilu waaw ni doo yegg ci nixmal mawlaa bi déedéet hasbunallahu wa nixmal wakilu rek ngay wax quatre cent cinquante fois Sidi Lamine tamit même question yooyu laa ko dama ko ne dama bëgg dama bëgg mucc mm-hmm. ci état musibaak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 loolu loolu tamit maa ngi koy fàttaliku nii ah. mm-hmm. maa ngi fàttaliku bu baax nag Sidi Lamine ci Coupe d'Afrique bi ah, ak Bruno Metsu Bokandé ak Thiam parce que ñooñu Sidi Lamine de lam waxoon ci Aliou Cissé nitu yàlla la mm. ba muy gëm Aliou Cissé waaw ñëpp ko weddi mu gëm ko ba muy weddi ma Sall ñëpp a ko gëm après ñëpp fekk na ko <laughs> position moom loolu la ko yàlla may mooy waliyu la lu mu nekk yàlla nekk ca dëgg la kon noonu la demee bu ko defee nag ci affaire ñaan yi keroog waxoon naa fi waaw loolu laay tëje rek dañuy joxe adresse yi mooy keroog waxoon naa fi affaire u tëju mooy nit ko wax nit yàlla dafa def. xamul problème mu waa jeex na. bàyyi ma nag ma dem nit yàlla daf koy def tëj. ak ah, nit dafay tijjeeku. Mm-hmm. di tëju yonent bi sax yàlla nee na ko. Euh, euh, nasru min allahi wa fathu qaribun waaw mooy fathu googu ubbiku yàlla da koy def ci mbir. Mm. da ngay nekk ci liggéey ba mu yàgg liggéey ubbiku da ngay nekk ci lépp ba mu yàgg rek yàlla ubbi. nit nag day tëju ba xam ne dafa tëju mooy mënoo am dara dara dara dara demal liggéeye banque mondiale defal lépp yaay gën a walaakaana doo am kër doo am dara loo am muy naaw loolu dafa am am na ñoo xam ne yàlla day ubbi seen mbir luñ dugg mu barkeel buñ solee seen dal lu luñ dox mu sotti am na ñoo xam ne ubbiku nañ ba egg ci ñu gisoon ci télé benn parfum seen xel bëgg ko rek bu nit indil leen ko loolu dafa am ci ubbiku ubbiku nag sangatu moo koy dindi moo koy koy may mu yàgg a sangu te mujjoo nekk nit ko ubbiku sangu nag am na sangate alxuraan am na sangati sunguf am na ay suuru yoo xam ne day dindi kumute mooy yaakaar muy tas loo dox mu dëgër loo dugg mu yàqu loolu sangat moo koy dindi képp koo xam ne da nga ca am aajo soo ñu wooyee kon dinaa ko gën a leeralaat ci beneen jataay <laughs> fool.